asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi noo ngi leen di nuyu di leen jottali kàddu yi alxaaji Abdul Fattah mii nga xam ne moo fi toogal sëriñ Abu Baraka mu toogal fi sëriñ Mouhamadul Muntaqa yàlla na leen yàlla sàmm te leen sëriñ bi mi ngi ndokkeel mboolem mbokki jullit yépp ak fu ñu mën a nekk di ñaan sunu borom jaamu yàlla gii nu nekk mu nangu ko booleel nu ko ca yem gën a nangu te yàlla may nu nu fekke ko ay ati at di digal nag ñi nga xam ne li dox seen digganteeg moom mooy digle ak tere képp koo xam ne kii it yitte na ko bu ko soobee mën na koo jël jox na ko ko hadiya nee na gannaaw bu mu ñu ndokkeelee kaddu yi genn kàddu rekk lay doon benn tomb tomb bi mooy fan yii a cheikh Mouhamadul Muntaqa yëkkati woon na ay kàddu joxe ndigal ngir ñu gën a sàmm dëkk bi ak li taxoon sëriñ bi sanc ko ak li mu fi nekke woon ak li mu fi daan nekk muy jëfe ndigal ak bàyyi tere moom nag tomb ba mu ca tànn tànn fas ci yéene laabirante bokk yi nga xam ni dox seen diggante ak moom mooy digal ak tere ak képp ku ko yittewoo mu jël ko mu jox ko ko hadiya tomb ba mu ca tànn tey mooy tomb bi nga xam ne bokk na ci li ñu fa dajale fii muy julli julli moomu bi sëriñ bi di ci dëkk bi xasida googu sëriñ bi jàngalu tudd matlabul fawzayn matlabul fawzayni mooy mooy tubaa mooy ci nga xam ne nit dafay wut texeeg adduna goog àlla ak goog àllaaxira texeeg adduna nit mi ngi koy jaare ci liggéey texeeg àllaaxira nit mi ngi koy jaa jaare ci jaamu yàlla sëriñ bi ne ginnaaw bu mu dénkee boppam mi ngi ñuy dénk ñu sàmmonteeg ndigal yooyu te boobu moom ñu def ko ni benn bëñ ci gémmiñ lu boroom sàggan sàggan war naa fexe ba mu weex tàll suñu boroom mi ngi ñuy wax ci alxuraan ne na ngeen sàmmoonte ak waxtuy julli yépp moo xam yi ngeen jàpp ne moo ne ci pegg bi ak ya ca digg ba yépp xaafidu ala salawaati wa salaati al wusta wa qumu lillahi qaanitiin ci man akuk tële bu jàmm amee mi ngi suñu loos bu fekkee fitna daa amit taxut mu wàcc nu mooy moo tax mu wéyal na fa in xeftum fa rijalan aw rukbaana su ngeen demee ba fitna yàlla ñu ci yàlla musal moom du tax julli wàcc kenn nu ko way defee baax na moo xam da ngaa dugg ci oto bu la fekkee julli bu fekkee da dugg la fekk ngay dox deel dox di junju kon mbokk bokk yi tomb bu am maanaa moom lépp am solo waaye bi ko sëñ bi tey moom nañu déglu am na nag ay waxtu suñu borom mi ko digle moo ne na ngeen ko saxal dàkk waaye du saa la neexee rek jóg julli waxtu wi farata wi lu ci nekk daa am waxtu fa aqimu salaat inna salaat kanat ala muminina kitaba mawquta bokk yi fi julli di wàccee nit ki kenn du am ci moom yaakaar sëñ bu mag bi bind na ci téere bu ñuy wax aljawharu nafis ne juróom-ñaari yëf a ngi ni yoo xam ne yent yi moom mënut a ñàkk ci kuy julli yett yi moom bu demee ba ne làcc ba tële ca lay dox jëm du tax ñu jégal ko ko ba ca jiitu mooy mu taxaw temm nii ma def nii bañ a bañ a laal lenn fa mu war a taxawee su ko mënut te mën a wéeru fenn mu taxaw te wéeru foofa te julli su ko mënut te mën a toog dojj mu def ko su ko mënut te mën a wéeru ci lal bi di ko di mu def ko su ko mënut nag mënu ci yenn te mën na tëdd wetu ndeyjooram mu def ko su ko mënut mu tëdd wetu càmmooñam xanaa foofu ku fa ay bokkam amatuñ ci moom yaakaar waaye taxul jullit saa su nekk saa bu waxtu jotee mu taxaw di ko nekk yonent bi sallallahu alayhi wa rasul amri al wa amuduhu salaa ndigal yi ca féete kaw mooy jullit bi saa bu doonee jullit wala doona gutub jullit waaye bataaxal bi agsi na ci moom ndigal li ñépp la matal waaye nag bu ko ab jullit jëlee lay tax mu bokk ci ñu jàpp ci mbaar mii nga xam ne ñu la ñu toog ku ci ne gis na jën yi ko yanoo nee na jul nag mooy mooy jën yi nag wala keno ya yonent bi sallallahu alayhi ne sallam ne julli mi ngi mel ci jëmmi juy dox di dem ak dikk moo xam muy nit wala bahima bahima ne bopp ba bokk yi yaramu nit ki lu ne mën na caa dañ mu di ko sooxaale am na ñoo xam yàlla nattu na leen seeni yoxo mënatuñ ci lañ mënoon wala seeni tànk mënatuñ ko ca wala seeni gët wala seeni làmmiñ wala seeni nopp wala seeni gët waaye ku tàggale nit ki ak boppam nag moom leneen lay tudd tur ba day soppi ku tudd neneen yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na li ñuy jëkk a seet ci ab jaam buñ ko dugalee ci bàmmeelam laata yowmal xiyaam li taxaw mooy ay julleem la ñuy jëkk a xool su julli yéwénee moom la ca des lépp mënees na koo sëgg sëgg mënees na ko sëgg maanaam bàyyi mu sedd comme ni ñu koy wax ndax moo gën a taqoo nit ki ci ak dundam loo xam ne bis bu set danga ko def juróomi yoon soo ko mënut dootoo mën la yay yow par am nee bu yëwee ne lépp yëwee su tàmbalee amee karaj karaj nag nee na faw ñu seet yëpp benn par benn yal nañu ci Yàlla sunu sëñ bu mag bii nga xam ne nag moom moo nekkoon njaareem gii te ñëw Tuubaa gii léegi na fi wàccoo nag nun bind na wax na jëf na bàyyi fi boo demee ci téere bu ñëw aljawharu nafis ma ngi ciy ñaax nit ñi ñaax nii sëriñ bi def jiital ca boppam waalam bi annaha an il fahshaa'i wa munkarin tanha bila xafaa'i na ngeen xam ne julli day dox diggante nit ki ak defab safaan kenn ngi nii koo xam ne ku jigéen la woon am na waajum defar te ci julli la ko jaarale waaja da koo takk taxawal ni malaaka ak jarak mayu ko fu mu yeku nàkkam jigéen ji ne ko daal boo demee fexeel ba julli ñeent fukki fan yoo xam ne farata yi waxaale ma ko waaye naafale yi doo ci tëbal benn boo ko defee boo ñëwee ñu wax mu koy def ba ñeent fukki fan yee ñëw soxna sa gisu ko soxna seeti ko mu ne ko far naa ko bàyyi ndax ni mu doon teewloo julli gi ak lam yéene ca ba may tàmbalee julli ak mujj na ko teewloo mi ngi mel ne néeg boo xam ne bii nit ñi dañu faa nekk boroom néeg ba nekk fa ne toog ca kaw ba mu yàgg ñu ne ndox suuf daa dugg ci néeg bi nit li mu kenn bu ñu ndox suuf fi dugg ba ñuy xool doon lal yeeg fu nekk jamono bañ koy xool buñ ko gisut buñ ko gisagut ka toog ca kaw moom lu ko waaye mën a wax du dégg lenn lu dul ndox suuf li génn wala jàpp nañ ko noonu la ñuy teewloo suñu borom ci ko julli ba mu koy teewloo nee nag. la ne far naa ko bàyyi defatuma ko mooy tan inna salaat tanha anil faxsha wal munkar moo tax sëriñ bi ne wa xaafidan ala salaati annaha xayru l ibadati fa azim shanaha wala takun muaxira salaati an waqtiha bi gayri udriyaati am eh, lu waay nekk bu waxtu julli defee na ko fa bàyyi dem bu mu ko jéem a def demi guro bu mu ko jéem a def en gros bàyyi ba wàcc julli lépp déedéet boo demee ci téere boo xam ne raw rawdu rayaahin moo ko dajale tudde ko min xakami cheikh ahmada bamba danañ ca fekk sëñ bi di wax ne koo xam ne la la ko te la nga bëgg a def la la ko tey def mooy jullee dox sa digganteeg loola danga am la yàlla digg ci ko julli te loola du la rëcc da nga jàpp ñaar yépp waaye koo xam ne dana naa àggale doo a julli ji loola dana ko rëcc julli rëcc ko yàlla ñu ci yàlla musal fi may jeexale mooy ba muy sanc mbakke Baari dongo yi ñoo ko fa jiitu defar barab ba ba manis fa nekk mu wàcc ci pénc ma ne ana jàkka ja ñu ne ko ak defaraguñ ko woon mu ne tas leen sanc bi te defar jàkk ba defar jàkk ji ba noppi dindi leen néeg yi xedd leen xadd bi daaneel leen per yi ñu def na ma ñu defar jàkk ja ba noppi mu ne ax ah kay daan ne ab jenn waaye ngi nii joo xam ne ji loolu la muy firndeel mooy ku julli tey def la ngay def danga am julli te loolu du la rëcc ne jenn waaye ngi nii joo xam ne wenn warax la amoon di ca liggéey warax wa nag timis jot jof si wut waa këram ne ko tey nga koo wëri ba xam ndax àll bii tojo gudde lépp ngi fi ndox ment yaa ngi fi mu dem wut ndox jàpp julli timis julli gu teey gu ànd ak dal indi nag lépp waa kër gi ñoom xamatuñ li ñuy def ndax war a wañ jaakaaroon di ci dund gisaguñ ko ba mu jullee ba def li muy def ba noppi ne naa jóg boog bas lu ci xaq fa mu àggee ca gannaawu kër ga la gis ñoo xam ne ay jëgg lañu jëgg mooy ñii di yóbbu marchandise yi diggante dëkk dëkk ñu ne yoonte ñu ne de nit la ñu ne lii nit la ñu ne lii nit la ñu ne yoonte ak moom ne ko foo dëkk mu ne sama kër ak nuu ñu ne ko nu fu nu fanaan lañ bëgg mu ne waaye dara amu fa de ñu ne ko am nañ luñ togg bañ toggee ba jox ko lañ koy jox mu ne da ngeen may nekk ma dem wëri kon ñu ne ko looy wëri mu ne waraxaw ñu ne ko waraxaw day ndong ment dàq na ko ba jaar na ci war nga dugg ci kër gi kon loolu waxi Sëñ Tuubaa la julli googee nga xam ne moom la tegoon ca kanam na julli ba noppi doroo santaane ndigalu yàlla yi ba noppi doroo doori doxe leneen ca la ko ndong ment dàqale war a ko ba dugal ko ci kër gi te yëgut tinut ñooñee fa dal ba ñuy dem dañ ko fa bàyyi loo xam ne ay fani fani fani fan la ca dund moo tax sëriñ bi na man chaxalatu man man chaxalatu asalaatu asiya intafaa biha wa bil ashyaa'i wa man shaghalathu al ashyaa'u an as-salaati fa in fala yantafahu biha wala bil ashyaa' kon boog sëriñ bi nee na képp koo xam ne sa digganteeg moom mooy déglu ndigal ak bàyyi tere mi ngi lay gën a soññ nga jàppe ci liggéeyu bii sëñ Muntaxaa di santaane ci sàmmal ko war may dëkk bi yow loo mën a nekk bu waxtu julli jotee na nga ko fa ne ñukk dem julli ba àggal door a dem ci sa yittey bopp kon fu waay jëm na ko fa yóbbu képp koo xam ne it doxalewoo sa diggante ak moom déglu ndigal ak tere it bu la soobee mën nga koo jël ndax an nasihatu ad diinu an nasiha sëriñ baa ngi ñaanal ñëpp yàlla nañ ko fekkee déwén suñu mbokk jullit yi nga xam tam dañu fay bàyyeekoo diggante daaw ak ren yàlla leen yàlla yërëm nawet bi nga xam ne ma luñ dugg it sëriñ bi neen yàlla na ci yàlla taw ndoxum jàmm muy ñoral te li mu ñoral it ñun ñi ñëpp ñu bokk jariñoo tam doon bañ a doon ndox muy wal di dugg foo xam ne kenn duggloo ko fa bay génn ay woroomi kër di yàq ay liggéey dugg yàq sax naam ginnaaw loo jóge fa suñu borom la waaye su ko naree defee noonu daal nañu ko seetal leneen defal nu ko ndox mu barkeel mu yaatu ñeneen ñi nga xam ne dañu liggéey gi leneen it suñu borom fekk leen seen liggéey yooyee defal leen ca barke ak tawféex asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. loolu dafa indi loxo bi sëñ bi daal di xool wallaay ndeysaan amiin